ñi ngi ñaan tamit bépp jàngalekat mu dugal loxoom si poosam looloo lépp ñu mën ko dajale jox ko gouvernement bi comme ni ko ñeneen ñi di defee waaye dañ siy jiitu ñu ñi nga xam ne ñooy njiitu syndicat yi looloo tax sendikaa bu nekk dugal na loxoom si gafagaam ñu dajale ko ba mu tollook million tey jii ministre bi daf ñuy recevoir léegi si midi incha allah bu ñu demee dinañ ko ko jébbal loolu nag njëlbeen la ndax li si des wax nañ ko mooy jàngalekat bu nekk di nga dugal sa loxo sa poos kon buñ ko boolee dina nekk lu xaw a takku ñu jébbal ko askanu senegal ndax kat jàngalekat yi ay sénégalais te lépp loo xam ne dal na Sénégal yi day dalu seen kaw dal seen kaw njaboot kon dañoo war a am taxawaay loolu moo tax taxawaay bii ñu am warul bett kenn euh, ñi ngi ñaan nag suñu borom ndax ginnaaw lépp moom mooy borom sabab yal nañu yàlla tekkil musiba bi nga xam ne teguñu suñu kaw lu mu gën a kaaw gaawee li si des mooy lépp loo xam ne rek xalaat la boo xam ne euh, bu ñu war a xalaat la pour jàppale xale yi si njàng mi jàpp ne G7 dina taxaw taxaway bi mu wara a taxaw pour gungé ndong daara yoyu ba di ñax timit wajur yi ñu taxaw taxaway wajur moy tejj nañu école yi xale yaangi ci kër gi mais buñ leen bayyi ñu dem ci mbéddi ma nañ leen taxaw ñu nafar la jotto jang pour bu école tijjee bu tijjee waati buntu école jafe-jafe du mëna am wassalam. Merci beaucoup.